Euh, sëriñ <coughs> mu Amadou Baawo déglu nañu waxtaan wi nga wax léegi sëriñ mu Amadou Baawo gaynde daa mas a ci àll bi bi gaynde wootee ci àll bi ñëpp daje ne ko jaay gaynde buur buur njaay looy woote mu ne daa am luwaa bu may woote ñu ne ko luwaa bi lan la mu ne ku fi bëgg ku fi gën a ñaaw nañ la rey ku fi gën a ñaaw daal danañ la rey bukki yani loxoom di jooy ñu ne ko bukki looy jooy mu ne man li may jooy mooy golo laa yërëm ak ni ma amee moom kóllëre te xam naa ne moo fi gën a ñaaw lii gaa yi di def loolu lay tekki yow mën ngaa bëri ñi yenu la ba sa biir weex dóor la ci suuf kala daan wëlbatiku bàkkuwul lu may ne ci liggéeyam yow ci sa jëmmi bopp nga toog nga yow nga topp ko di ko sabote nay sabote nit ki xam nga su fekkoon te ni dañoo jàkkaarloog Basiru Joomaay daan ko ba noppi wëlbatiku di ko sabote kon sax sénégalais ànd ci waaye li ñuy def nii ñàkkal bopp ñàkkal seen bopp fayda rek lay teg da ngeen di ñàkkal seen bopp fayda rek te da ngeen di fay en ah kenn tanewu leen ci dangeen di fay da ngeen di dem ba kenn duutu leen faale ndax ñëpp la ñuy xam ne yéen ñii vraiment yoru leen xel yi doomu aadama quoi ndax yéen man ngeen a bëre ngóor si ngóor si yéenu leen dóor ci suuf tourné ngeen di ko sabote mais yéen sabotage bu ngeen mën a def si Basiru Joomaay yi ku ko dégg rek danaan yëll bi mu leen daan moo leen naqari kon jàppale ko ngeen di ko def li ngeen di gën a soof rek lu ngeen gën a continuer ci lii da ngeen di gën a soof kenn tanewu leen ci Basiru Joomaay bu leen ko saboté ci jëmmi boppam bu leen ko ci waxiinam dafa am ci góor yàlla yi koo xam ne dafa mas romb golo mu wax ci xel mi ne ko golo mii moo ñaaw yàlla waxloo golo ga golo ga ne koy eh, góor gi yow xasoo ma de yàlla ngay xas góor gi ne ko waalu ma xase yàlla mu ne ko ginnaaw damaa ñaaw kay yàlla mënut a def lu rafet moo tax mu bind ma ma mel nii waaye Bassirou Diomaye lépp lu ngeen xool ci moom ci timit gi mu timit ak yar beeg dal geeg li mu bindoo mu naqari leen da ngeen di dem ngeen song yàlla mi ko bind ngeen xeex ak moom basiru du moo bind boppam du moom mooy jox boppam aw melo te lii ma leen wax ngeen weddi ko da ngeen di gën a soof rek waxuma la yéen waaye APR day mujju nax say complètement ndax ku fàttali la faloon da nga fuleeku ñun ñoo wate woon ba APR yéeg ñoo wate daaneel APR amuleen meneen mbooloo bu mu ngeen mën a yore am réew ginnaaw nag yéen da ngeen a yaakaar ne falu ci ko doomu aadama yi di leen jaay doole di noose alal gi di dafa ka dindi kenn mënu ci yéen dara ngeen yaakaar ne loolu mën ngeen ci continuer ñun ñoo ko fajal suñu bopp ñun waa Sénégal te dootu leen fi falu ba mukk ndax jikko yéen yore ba léegi jógagul ci yéen ndegam nguur si daan na leen ba noppi ngeen tur di ko jim a ci jëmmam ak di ko jima sabote yéen ñun dañ leen di suul te du ngeen dee complètement sénégalais yi ci seen bopp ñoo leen lekkoon te ñoo leen wàccu nopp lu leen waa ji sëriñ abdul xaadir neel fii ba vingt ans fii ba vingt ans lañ ko ab fekk ñu ngi ñuy jiima forcé ci di ñu imposé li leen neex ñoom yaakaar ne yor xaalis bu bari boo sàcc mën naa tax nga am li nga bëgg du dix de fii ba vingt ans la ñaan yàlla liñ bëgg mooy yoon yu ñu tëral jaar ci ñoom ñu continuer ko dinañ falaat Bassirou Diomaye cinq ans dinañ fal Ousmane Sonko dix ans mënuñu ci dara ndax duñu seeni mbaam da ngeen a am seen bëgg-bëgg nit ñi am seen bëgg-bëgg su fekkente ni bëgg ngeen a jotaat ci nguur gi ànd leen ci li yàlla dogal ngeen jot ci nguur gi su fekkente ni nag defu leen ko kart yi moom ci suñuy loxo lañ nekk ñuy loxo la nekk de te lii ma gis day ñi yaakaaroon ne ndeysaan lu leen neex nekk ca ah loola léegi nekkatu fi léegi de mbuur mbuur mbuur mbuur kat lañ nekk Cees de waaye danañ ma seeg si mbuur mbuur mii de mbuur mbuur gi ñu dëkk ak gàndigaal danañ fi ma danañ fi ma seeg si de yërëm gi ñu daan yërëm nit ñi sax awatu ci awatu la mën a am léegi ndax nit ki da nga koy yërëm te yërëmul boppam ñi nga xam ne ñoo doon dund ci kaw APR te seen intere rek nekk ci ñi ci di seen seeni code ñooñu ñoo nekk di jalgatee ka coowaloo nii de waa ñu nekkoon ci ndëng tëgg yenu bànga ba xam ne ñoom la ñuy atte kenn déggu seenu làmmeñ ñu ngi ne pat bu ngeen bëggee seeni gaay yi te ngeen leen a sàng sutura du moo gën amul fu ngeen mën a jaar ba du lu ngeen ree di ngeen jooy lu ni toll gis nga boo jëlee sa gerte xolli ko nga def ko ci ab saaku aw sax dugg ci biir nekk ci benn doomu kemb ba waxtu tigga dege wa jot nga jël ko daal di koy sànni ca pool ba di ko saaf wallaay sax walum lekkoon ca gerte ga dina lakk ca biir caaf la lu ko gën lu ko metti boo tonnee sew niw def ko ci ab këll dëpp ko di ko dajale ngir bëgg a defar diwu ñor aw sax dugg ca biir di lekk ca niw wa bis bu ñu jëlee ndim woo ba ne ko sa teet ci cin la nit ñi tàmm seen maam amul ndax xam nañ li may wax bañ ne ko sa teet ci cin la ba jël xasug xasug xasug siddéem déem ko ca pour bu ca pour mu xongal ko rafetal diw ga bu diw ga ñoree ba ba ne xooma bañ di ko segg booy segg doo gisu sax de sax yépp ñooy seey lu ngeen noosan ci APR billaay di ngeen daj lu ko raw bu soobee yàlla ndax baadolo xamul yee yeelaa xam nga nit ku nekk la muy dund buy wax loolu mooy feeñ koo ci dégg muy faral APR di saboote Bassirou Diomaye dafa amoon ant intérêt bu mu am ci nguurug APR wala mu am intérêt bu mu ci yaakaaroon a am mu ñu yàqal ko ko waaye képp koo gis mu àndoon ak Macky Sall tourné woon ko ginnaaw complètement ne affaire daf fi jóge dafa bëggoon injustice bi ci réew mi jóge fii ba tax mu xeex ak Abdoulaye Wade ngir loola jóge fii Macky Sall ñëw loola gën ko pire xam nga zone yi ñu benn man ngaa dëkk Jurbel suuf soo xam ne amul benn valeur nga xam ne këru trente sur trente wala lu ko ëpp man nga ko am ci ay ñaar fukki junni ay juróom fukki junni foofa buñ la fa xañee suuf soo moom te joxuñu la sa àq du metti ci yow man mii di wax ak yéen gàndigaal gii ma dëkk lu ma fi am dama ko jënd daanaka benn tool laa fi am boo xam ne bii dama ko gor ku ñuy wax Silbert Faye moo ma ko joxoon tool boobu bañ ko nattee war naa dem ci daanaka juróom benn fukki kër ak nangam waaye dañ ma ne yaay fay bornaas bi kër par kër ma fay nattkat bi kër gu ne trois mille kër gu ne trois mille kër gu ne trois mille ba dool ba tool ba daj ñu séddoo ko ak man yemle képp gandigal gii jënd naa fi hectare ca ba fi hectare di jar ay deux cent mille ak deux cent vingt cinq mille ba ma koy jënd dafa am ay seere hectare ba du woon terrain niil dañ ko sampoon ay barbar ak i poto ba mu wër mu am ay garab yu def ca biir waaye garab yoo tax ko woon a bari ba ma koy jënd président communauté rurale bi ci boppam ci témoins yi la bokk moom moo dóor kaase signé xamal ma ne ma jëndal ginnaaw da bëgg a defar poulailler jënd ko man dama lay defar këyit ba tey jii signature ba ak tampon ba mi ngi man mu signé dóor kaase ma jënd moom président comité moo def la amee am na ñaari témoignage yoo xam ne gaañu nañu waaye seeni doom a ngi dund te ñoo ko signé woon ba ko seeni ko tool boobu dama ko daal di wërale ba mu ne kekk ma dem dëkk bu ñuy wax ngejj ga fa laa gise woon teenu gaas ba ma jënd fa ëpp juróom benn fukki taati garab yi mango yi meññ yoo xam ne bu ko jeexal la ñëw samp tool bi ba mu daj ma gas ci teen boo xam ne juróom fukki junni laa ko gasee tabax fi benn néeg bu gardien tabax fi poulailler jënd solaire six cent mille booba solaire noonu la seere monte ko fa jëmbat tool bi ñaam bi ba mu daj ma départ ma am contrat man ak Layla jabaru Abdou Fakki armerie sénégalaise ba tey bon yam ma daan jox di ma fay mi ngeeg man ma démarré di fa yóbbu junniy ginaar ak juróomi téeméer par weer wu dee wu nekk man ba ñu lotissee sama tool yàq sama poulailler pénurie de ginaar dafa am ca université ba sax ngir junneeg juróomi téeméer yooyu ma doon dugal weer wu nekk gandigaal yëpp seere ma ma jënd sama groupe électrogène buñ demee ba war a yóbbu ginaar yi damay jël nit ñi dem fay leen journée trois séries bëccëg la ñuy départ booba xusukat yi amagul yu machine yi di xus ba cinq heures fajar ñu eggal ma def ko ci ay kees jël oto yóbbu ko université weer wu dee noonu laa doon def dañoo ñëw ñoom ñoo ma jëndiloo woon tool ba dañ ma koo jëndiloo signeloo ma acte de ma signé ko ñu signé ko dóor seen kaase ma def fa loola sa tool ba dañoo ñëw dugg ci tool bi natt ko lépp ay kër sama teen kenn remboursé wu ma noonu laa ko ñàkk sama poulailler kenn remboursé wu ma ko noonu laa ko ñàkk juróom benn fukki taati garab yi nga xam ne toll woon na ci meññ ba léegi am na yu fi des ku ñu fekk ko fi noonu laa ko ñàkk ñàkk sama terrain ñàkk sama poulailler ñu sàcc fa sama solaire yóbbu koo lépp waa Gandigal ñoo ko fekkee natt ko muy vingt sept parcelles ci quinze vingt billaahi juróomi parcelle lañ ma jox ci vingt sept parcelles yi ñu jël vingt deux terrain bi ba léegi raafagul mi ngi fii dëkkaguñ ko ba mu fees mi ngi fi tabax ba ma fa tabaxoon ma fa fondation wu poulailler bi bu ma ko tojee fondation ba ma nga fa garab ya itam ña nga fa ku ñëw fekk leen fa ñu jël garab ñu jël tool bi naan bii ma dama faye ko moom bii procureur bii gendarmerie bii commandant bii diw ak diw bii kii kiti bii kaaki ka juróomi kër lañ ma ci jox jotaat naa ci juróom-ñetti kër juróom-ñetti kër yooya dama leen a wax ne dañ dama leen wax ñu ne ma da ngay natt sa beneen tool nga remboursé nu fa ay kër ñu door laa jox juróom ñetti kër ci toggi tali bi damaa natt sama beneen tool remboursé leen door cee jot am na ñoo xam ne dañoo dikk dal ci kër yi ma moom ne maa moom amoon na ñu dal ci sama kër yi bopp yi yi ma moom ne ma ñoo ko moom ba def fa seeni fondation ba ma waxee ñu naan ma demal gendarmerie ma leen man ilimaan laa ci dëkk bi di man fi waa dëkk bi di nangu sama alal ma leen di yóbbu ci buur te man mooy taxaw di jiite seen kanam bu yàggee loolu dootu neex kon kay li may def mooy ma ñàkk sama alal waaye du may nëbb ci buur waaye yàlla def na ba ñàkkuma sama alal te yóbbuma leen ci buur waaye tolloo ba léegi ay kër a ngi fi ay mango nekk ci ma moom leen ay kër a ngi fi ay mango nekk ci jox leen ay nit nit ña dëkk ca ma ñàkk samay mango ñàkk sama poulailler ñàkk sama euh, nu mu tuddati sama sama sama solaire ñàkk la ma jëndee woon tool bi ak la ma ci defoon lépp ñàkk sama liggéey moo fa doon liggéey ñu jox ko ay nit ñu galgaande ko nguur googu di protéger loolu ku ànd ak nguur gi nguur gi daf laa jox sa intérêt ba mu mat moo tax nga ànd ak moom waaye ñun nga xam ne nguur gi dafa jàppale ay nit ñu miraas ñu bañ nekk ay ndóol duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg nguurug Ablaye Wade gu Macky Sall ku ne baax na daf laa amal njëriñ waaye ñun ñi ñu jaar ci suñu kaw di lekk suñu alal te mënuñu ci dara baaxut guddi baaxut bëccëg moo tax jële nañ ko fi. gandigaal gi di ko dalee Malicounda Mbambara ba ba ngay dem Caritas ay tool a fi nekk amul ci benn lotissement boo xam ne bii gouvernement bi ñoo toog wate ca con ca conseil ca conseil ba ñëw wate ñëw ñëw ñëw lotissé ko ñoom politiciens yi ñoo ŋàbb seen i saak dem ci borom tool yi ne leen dañuy waxtaan juboo ngeen signé ñu lotisé seen tool fekk yéen ci ànd ñu seddoo seen i quota am na ñoo xam ne seen saag la ëpp junniy kër a ngi ci ñoo ko moom gars yi jaar ci alali jàmbur yi di ko maate di yàq seenu liggéey di leen tere bay seen tool di jël seen kër di ko di la natt seen i kër te buñ nattee ba noppi ba indi plan bi fa nga bëgg say kër nekk fa say kër du fa nekk ñoom ñooy dem lijjanti génn seen i këyit féetale ca la ca àll ba jël la féete ak dëkk ba féetale la ca àll ba jël la féete ak yoon wa boole kook yow boo dee jaay doo jaral seen jeexaluñu boo ne kër trois mille laay jaay ñoom ñu mën a jaay kër un million cinq cent mille ndax la ndax sa alal lañuy ñuy jaay lañ fa am fekk jeexul la nga fa am doo ko jaay tappale yi nekk fii gën a maa biir sàng leen sutura ñu nekk ci lu leen neex di jël di séddoo alali baadoole yi ku ci ànd ak di leen baaxal da nga dañoo séddoowul sa alal waaye bu leen yaakaar ne sàcc ndund yomb na de tama sàcc ko yomb na de waaye fooy mose ba xam ndax neex na moo jafe ndax foo ko tëggee ñu la dégg foo ko tëggee rek danañ la dégg duñ leen bàyyi noonu de ngeen jël si alal yi di ci tabax étage takk ci jabar dëkk bu nekk jabar ak étage dëkk bu nekk sa alal nga def ko dëkk bu nekk sa kër nekk nga def waa wanagu oto boo xam ne ay gétti ñu am ay gétti xar yow nga am ay gétti wata yoo xam ne oto bu nekk cent million cent nanga million loolu nga jëlee ko ci alal yi doomu aadama yi dañ ko mënut a bàyyi dafa mënut a nekk ñàkk ànd gi ñu ci ñàkk ànd ku ci ànd ñu xam ne yow da nga ñëw yéenee ñàkk suñ danga ñëw yéenee nu ñàkk suñu alal waaye ñun duñ ko mën a bàyyee noonu ñun liñ ñu xas a lekkal mën nañ koo bàyyi ndax rees na waaye ñeneen ñi nga xam ne dañoo jot sàqam bi seen alal te wan a guñ ko nañ ko yàbbi loolu mooy yoon leneen lu waaye wax lu du lii ceeg naa fi wax nga ne gémmiñ nag tàngal bu ca nekkee mu borom di ko maj dana xataay waaye gémmiñ buñ ca fa gépp kurfañ borom du wax jàmm fi mu nekk nii nag dañoo tëgg ci seen gémmiñ ab kurfañ moo tax mu leen wax jàmm waaye wallaahi fexe ba jël alal jaam yi yomb na waaye fexe ba mu lew ci yow àddina ak alaaxira yombut alaaxira ji moom di ngeen ñu ko delloosi ci mu neex leen ak mu naqari leen te àddina ji duñ leen bàyyi lu duñ dañ ko topp ba xam ne te nañu ñu doon ko bàyyi waaye duñ ko mës a bàyyi entre Malicounda Bambara ci penku dëkk bi ba ba ngay dem campement nga xoox bañ yem ak ñoom ñoom biñ ko bëggee lotissé te boobu mu di àll boo xam ne kenn dëkku fii dañoo woo seeni xarit ak seeni am di jàmm ay patron ñu ñëw yor ay kat-kat tëj ko weer yi ñuul kurum daal di ñëw boo tolloog foofu daal wàcc ci oto yi noonu oto yi jub yi oto yi toppalante lu mat ay juróom benni oto toppalante daal di wër a wër a wër a diggante boobu àll bi yëpp ñu wër ko bañ ko wëree ba ñibbi ba am ñaari fan ñu daal di génne benn rumeur Ablaye Wade moo fi nii ay patron daa bëgg a dagg suuf si def ko ay aselem def fi def fi laa lu ngeen nangoo nag ñu dem ca communauté rurale ba ngeen signé ñu ñu daal di dagg tool yi bala ko Ablaye Wade nangu ndax bu ñëwee fekk ñu dagg ko mu def ay kër nekk ci plan bi dootu ko nangu waaye bu dikkee fekk mu nekk ab àll dana ko nangu gaa yi seen bo seen bopp peer nangu man de sama tool a nga fa ba léegi sama deux hectares yi kenn nattu ko dama bañ te natt nañ ba ci sama tool jël ay bonnet teg ko ci wet ga ma ne su ngeen ko sampee ci biir man ak yéen ñoo koy lijjanti kenn mënu ci dara damaa dem uti sama plan cadastral dem pour yi sama sama sama sama titre foncier ngir sama alal mën a mucc yaa ngi dégg waaye noonu lañ naxe nit ñi natt àll bi yépp séddoo koog ñoom jël kër yi signé ko dóor ci ay tampon te ay tur sax nekku ci sol ko ci seeni saak kuñ bëgg a jaay rek daal di monté sa tur jaay la fekk lépp sotti na am na ci tappale yoo xam ne il faut ñu topp ko ku ci yàlla defoon nag nga bëgg Macky Sall comme ni ma ko jàppalee woon na nga xam ne danoo bëggoon suñu waay fal ko waaye ña mu àndal ay tappalekat lañu te la mu nekkoon da leen caa bàyyi il faut ñu topp leen gars yi mënuñoo ànd ak Macky Sall ci APR Mirage senegal jël alal jëpp dajale ko ci seeni poos wëlbatiku di ñu mbëlee ñu ne leen di bàyyi ci loolu loolu munta nekk ku yaakaar ne danañ leen bàyyi da ngay nax sa bopp danañ ko topp si ko bu yal na yàlla jéggal ñu noddu gaa ngoogu dañoo war a julli ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw Sané Bekki moom li mën a jàngate ci waxam ci moo di ak ndofam moom moom mii di wax moo nekk ab dof am réew ci ay luwaa lay dox ci sàll bu demee ci banque mondial lépp fa programme boo xam ne dem na ba deux ba ñooña débloqué xaalis jox ko ba ñu ñëw tàmbali liggéey ba jël ay entreprise yi liggéey ba tàmbali liggéey ba léegi lan ngeen bëgg ñu dikk ne loolu dañ koy dajji sànni ca àll ba gaa yi taxaw ne kon alal ji joxoon ji jotoon a dugg génne leen ko léegi léegi léegi léegi léegi léegi Amadou su fekkonte ni yow man dama yor benn compagnie commerciale boo xam ne damay jëflante ak bitim réew compagnie commerciale booba jox ma matériel bu ma war a jaay ma indi matériel bi ba stocké ko muy bor ci man ma war koo jaay delloo leen te xas nañ bind facture yi ba noppi ma bàyyee la ko Amadou nan ngay def dangay wax waxu gaa yi ne leen gaa yi leen jël seen marchandise mi ma jotoon a jël Euh, mi sax gi na jël ba am lu mu ci jot a jaay su boobaa dañ la naan ñun jëluñu marchandise mi xam nga la lañ soxla nga fay nu liquide cash dagal na suñu bénéfice ci saase ak saase Macky Sall jam ñaajo gi mu tabax est moom moo leb xaalis bi ñu ko tabaxee jam ñaajo Macky Sall dafa fekk Ablaye Wade tëral ko moom ak banque mondiale ba financement yi sotti lu tax bi mu dikkee ne day continuer pôle de Diamniadio te Ablaye Wade ko tuddul ci aw làmmiñam ba natt ko ba jëflante ko banque mondiale ba noppi lu tax dajjiwu ko sànni bu ko dajji woon sànni du sotti aéroport international Blaise Diagne bii di AIBD kan moo ko négocier ba am financement bi tabax ko ba mu des tuuti mu jege fi gis que bi Macky Sall lu ñëwee daa wax ne nañu toj aéroport Blaise Diagne sànni ca àll ba ma def lu bees waaw Macky Sall tali bi nga xam ne mooy ay moo di Ila Touba kan moo ko négocié woon ba bëgg koo tàmbali ku dul Ablaye Wade waaye lu tax bi Macky Sall ñëwee dajjiwul tali bi sànni delloo xaalis bi xàcc signature ya daf yu fi boppam Macky Sall tali bii nga xam ne moo jógee Ndakaaru romb nu dem ba ginnaaw kër bàllaloo kan moo ko négocié woon ba jot financement bi ko dul Ablaye Wade lan moo tax bi ma ki dikkee dajjiwu ko ma ki xool ne eggale naa fi yoonu Touba te Ablaye Wade moo ko sasoon eggale naa fi poolu jam ñaajo Ablaye Wade moo ko sasoon eggale naa fi route bi jëm Mbuur Ablaye Wade moo ko sasoon xàccu ko changé wu ko dafa continuer banque mondiale ba eggale ko mu signé fi nag ay contrat fii ba deux mille trente cinq bokk na ca milliards yi mu signé ak Arabie Saoudite ci defar usine buy segg ndox géej gi ba mu nekk ndox mu neex te loolu mi ngi ko def bi nga xamee ne nguuram defil ñetti fan waa léegi contrat yooyu muy signé ah bi Bassirou Diomaye bu dikkee day woo Arabie Saoudite ne ko nañoo signé contrat ñoo gi yow ba nga débloqué ay milliards boo defee defar usine bi soog ndox mu neex Macky ki la ko sasoon kon dañ koy dajji Amadou kon ngeen teg ko ab dof gis nga mbooleem loo xam ne Macky sàll signé woon na ko ak Occident ak bitim réew muy financement bu jëm si ci réew mi bu ñu war a liggéey muy njëriñal réew mi ba tàmbali ko bu ko Bassirou Diomaye dajee dina ñàkk te dina fay bor bi ci mu neex ko ak mu naqari ko waaye mboolem contrat bu ma Sall signé woon ak ak bitim réew muy liy génne Sénégal jëm bitim réew te nañ ko cëralee suñu bénéfice nekku ca moom danañ ko dajji lépp lu mu fi signé woon nag yellante woon mu signé fi contrat bu jëm téeméeri at te contrat boobee di njëriñal Sénégal ñoom danañ ko eggale mbaa buñ fi jógee ñeneen eggale ko waaye bépp contrat bu fi APS signé woon te njëriñul Sénégal nekku ca ay naxam dong nekk ca danañ ko dajji changé ko def ko beneen noonu lañuy ñuy doxee Macky Sall pôle te jëm ñaajo Abdoulaye doo ko yëkkati woon bu mu dikkee teggiwu ko daf koo eggale Macky Sall autoroute Ila Touba Abdoulaye Wade da ko inauguré eh, woon bi mu dikkee teggiwu ko daf koo eggale voie de dégagement sud VDN ko eh, tàmbali woon bi Macky Sall dikkee xàccut liggéey ba daf koo eggale autoroute à péage ba ñëw Mbour ma Abdoulaye Wade moo ko négocié woon ba départ ko ba génn si ko ba ci jam ñaajo ba Macky Sall dikkee xàcc ko da koo eggale kon nag ñun bañuñu waa ji eggale projet boo xam ne buñ financé woon la ba noppi mu jëm si ci réew mi dama ki sàll négocié koon waaye bépp alal yoo xam ne dañ ko négocié woon tubaab war ko fa jële te lañ ko jënde jëru ko danañ ko dajji loolu mooy suñu xel sa waa ji nag li ñuy xamee ci waxam ji mooy ak ndof ak ndofam moom ak ñàkk a xam état état continuité la état continuité la lépp lu ñu signé woon te muy intérêt mi danañ ko continuer lépp lu ñu signé woon nag te ñàkk njëriñal réew mi nekk ci ak pertement danañ ko daj yi noonu lañ bëgg a doxe te di nit daay yoo xam ne kenn mënu ñëw gasar kàmb kenn mënu ñëw kenn mënu kenn ñëw jaboli ci suñuy xalaat Macky Sall bëgg a jaay askan wi tubaab yi takk buumu njaam gi ba mu gën a dëgër ji di ko diri moo tax mu wóor ko ne dem na ba ci dernier mandaam muy signé ay accord yi jëm deux mille trente cinq li mu bëgg mooy sàmba man genemam man gannaawam d'accord sàmba dina man gannaawam de ci li nga xam ne suñu intérêt ngi ci waaye sàmba du man gannaawam ci li nga xam ne suñu suñu njariñ newu ci ñun ay nit yu am ay yuur lañu ci sunuy bopp te dañuy xalaat war na wóor ne koo xam ne sa reñ yëpp mënta weesu fukki at ak ñaar toog nga juróom-ñaari at watewaat wala toogaat juróomi at nga bàyyi ba juróomi at ya def mel na at ngay duggalante ak bitim réew di signé ay accord yoo xam ne fii ba deux mille trente cinq la te muy accord yoo xam ne boo ko xasee signé ba noppi si yow soo ko dee signé dina am alamaan bu la war te loolu sa alal la jooy joxe te la nga doon yuutu da nga ko ñàkk Macky daf fee bëgg a des ba faw la Abdoulaye Wade waxoon ne bëgg naa fee toog juróomi at du caagee nag juróom fukki at du caagee nag moom mu toog fi juróom fukki at waaye nag Abdoulaye Wade jóge gu fi de ndax émergent ci boppam plan émergent Abdoulaye Wade moo ko fi njëkk a yëkkati yaa ngi dégg Ablaye Wade moo fi njëkk a yëkkati plan bañ di ko laaj naan ko góor gi émergent mooy lan mu ne leen émergent mooy fitti mooy fitti mooy nukki nuur bay nukki ba doon ko saboté naan ko yow mi nuuroon bay nukki ña nuuruloon di continuer fii mbaa bala ngaa nukki ba ba génne fi nga nuure woon ba départ ña doon fii itam duñ la raw doonaa ko ko wax ci yow la wax ba mu koy wax waaye plan émergent du du waxi Macky Sall de plan émergent la moom moo ko soppar ci tuddu ko Sénégal émergent te mbooleem li fi Macky Sall eggale ñaari mandaam yëpp fi Ablaye Wade sémboon ba noppi la lu tax ba mu dikkee ne Ablaye Wade nekkul ci dëgg ba ànd ak moom ba daaneel Abdoulaye Wade soppi loola sànni ci àll ba Abdoulaye Wade bàyyil na ko fi programme boo xam ne Macky liggéey na ko ci fukki at ak ñaar waaye ci ñaari ati mujj yi Macky sombu sombi na fi programme boo xam ne dem na ba deux mille trente cinq deux mille vingt cinq deux mille vingt quatre ba deux mille trente cinq ñaata at la vingt quatre ak trente cinq ñaata at la daanaka fukki at ak fukki at ak benn la walla fukki at ak ñaar kon moom programme bi ko lay wax da bàyyil mu liggéey ko ci fukki atam yéeg ñaar fexe ne ba bàyyi fi programme boo xam ne deesu ko liggéey lu dul dana egg ci fukki at ak ñaar pour mu wane ne maag yéen a yem donc la Abdoulaye Wade tëraloon bàyyi fi moom laa eggale man itam li ma tëral bàyyi fi moom ngeen di eggale d'accord li mu tëraloon bàyyi ko fi te muy suñu njariñ na ko joomaay eggale bu joomaay eggale ba wàcc nag Sonko yéeg tàmbali bu bees Amadou dafa am lu ñuy taxawal soppi ko ak lu ñuy bàyyi mu continuer Farba Ngom mi doon géwélu Macky la leem ab xaalis bu dul jeex ci ay këram mu di milliard loolu moom rupture lañ koy def duñ ko may keneen cokkatoo bi ñu doon cokkatoo suuf réew mi di ko séddoo xool place yi gën a am maanaa buy dëkk cosaan yi di Ngor di Yoof di dëkki lébu yi sës ci géej gi nga xam ne fa suuf sa gën a seere ñooña am seeni doom am seeni jarbaat ñu war a am ay kër gaa yi dem wutu leen fa maasale xeer ya nangu ko ci ñoom di ko jënd lu yomb te mën koo jaay ji milliard bi ci xaalis ñii di fa tabax ay hôtel ay R plus douze ak R plus vingt loolu changement bi arrêté boobu rupture la dañ koy rupture day deñ yaa ngi dégg ca besug ndar ga xamee ne rakki Marème Faye jël na ko nangu ko elage ko fekk fa jumaa ji daan jullee mu tëj jumaa ja sànni ca àll ba ne dafay def yëfi boppam loolu changement bi rupture la dañ koy changé kooku rupture la yaa ngi dégg euh, dajale lu ëpp téeméeri ministre ak juróom fukk ay ministre conseil ay ministre jëndi café ay ministre jëndi jëndi ta jëndi jëndi ay ministre jëndi soccu ay ministre toog di dam yeek xaqtaay ay ministre eh, to eh, ñu def la ministre conseiller ngir nga noppi dootoo ma xas ah, nga noppi loolu dindi nañ ko te loolu rupture la kenn waxul ne bu ñu dikkee dañuy freiné réew mi yëpp déedéet waaye doxalin yu bon yi lañuy dindi bàyyi fi yu baax yi l'islam bi mu ñëwee dafa fekkoon njaaloo nekk fi islam bi mu ñëwee dafa fekkoon mariage contrat nekk fi waaye islam bi mu ñëwee dafa fekkoon mariage normal nekk fi doom di bëgg jabar ba yebal baayam ci kër keneen ñu toog mayente jabar nga xam ne takk bi yonent yàlla mu amat takk sayyidatuna xadijatu ca takk ak ca doggale te dañ koo bàyyi mi continuer benit bi dikkee daf ne na njaaloo gi dakk njaaloo ga dakk mu ne mariage de contra gi na dakk mariage contrat gi takk mu bàyyi takk yoon gi mu continuer ku bëgg jabar takki ko ci yoon sa bàyyi ñaanale ko ñaanale la ko bàyyi ndaw sa maye maye ko te fekk ngeen bëggante yéen ñaar nga joxe ak can yeneen bi waxul rupture dañuy rupture dootu ñu maye jabar état nag noonu la demee Amadou rupture du caagee nag nga ne mboolem li fi nekkoon dama koy buub sànni ca àll ba riptiir moo di la fi nekkoon te baax nga yokk ko samp ko gën koo dëgëral la fi nekkoon tey lu bon nga dindi ko sànni ca àll ba du am na benn avocat bu jigéen bu woon a jël ay deux mille mètres trois mille mètres carré ci suufu libu yi ba jël fayda jëm bëgg a tàmbalee tabax gaa yi ne mboolem tefes gi dale Casamance ba ba ngay egg Mauritanie lépp lu di projet buñ fi sasoon nañ ko arrêté ba ñu seet kayit yi ba xam tege na ci yoon am déet loolu rupture la yaa ngi dégg mburkaat gi nga xam ne dañ ko nattoon mu doon ay junni junniy kër gouvernement bi ñëw tajaxit lépp daaneel ko ba ne wëlbatiku séddoo ko moom ak i am di jàmmam toj gaa yi génne leen fa te lotissement bu normal la woon arrêté gañ ko arrêté rupture la forêt classée bi nga xam ne moo nekkoon fii ci si diggante ak kees te gaa yi fexoon ba dagg ci lëpp junniy hectare ci forêt classée bi faacoo ko séddoo ko ñoom waa gouvernement APR bi dajj gi ko waa daj dajji la yow Amadou fi nga dëkk labaj defee bariwut moo tax bu ñuy rupture doo ko xam doo ci yëg dara waaye ñun ñii xam nañ ne rupture am na de ndax bari na luñ daan jalgati ci suñ côté yii te jalgatee tuñ ko Amadou fii kër dafay jar fukki million ak ñeent fukki million ak juróom kër dafay jar cinquante million juróom fukki million te kër dong la keseŋ aw xottu kër kese la kon nun xam nañu ndax rupture bi am na wala déet fa gaa yi jalgatee woon yoon gaa yi redressé nañ ko rupturé nañ ko fa amul yoon wu ñuy xàcce jalgati nag bàyyi nañ ko na mu meloon loolu moo tax yéen ñi nga xam ne jalgati bariwul seen koñ bu rupture di am du ngeen ko yëg ñun ñi nga xam ne nag jalgati rek lañ jëkk woon ak ñun ñun xam ne ne rupture am na te def nañu ko waaye rupture nag moo di jiwu wi am na gerte gu saxe ñu ne ni ñuy def ñee nañ ko tëral ci suuf tànn gerte ko saxe gi yëpp ak buuse bi ba mu set jël kemb gi wuti guñ ci boole jiwi waati ko yow nag da ngaa fekk jiwi bi saxe waaye kemb gi ci biir nga ne nañ boole kemb gu baax géeg ak ak xott ak ak ak gu saxe gi xëppi ko ca àll ba jëndaati gerte gu bees di ko xolli loolu moom Amadou duñ ko def amadu yonent bi bi mu ñëwee ci économique def na ci rupture te daa te daa nendal économique gu Hijaaz yonent bi bi mu ñëwee dafa fekkoon ñiy jaay nit njaam mu rupture njaam gi daal di wax ne ku fi jëndatis gor ku fi jaayatis gor lekk njigam ba tax ko doon ab jaam da nga tàbbi safara loolu riptiir la ndax ba mu dikkee moom jàppa asgor di jaay yi dootoo ko gisati kooku riptiir la génne na ñi naroon a dooni jaam te doona guñ ko loolu riptiir la woon ci moom mu daldi wax ne ku ci yor ab jaam nag te mu bëgg a liggéey jot boppam nanga ko nangu te dimbale ko mu liggéey ca boppam kooku rupture la mu indi nag ay sart yu bari yi yu ñuy yu ñuy goreele jaam loolu tamit rupture la waaye ba mu ñëwee waxul rek ne jaam loo sa mbokkam di daganut dem ci kër yi ñu nangu jaam ñi jaam ñi dem seen yoon alal ja ca ñooña nekkoon am ñu perte ko xam nga mën ngaa wax ne ginnaaw yeneen bi da doon bañ njaam daaru na nangu jaam yëpp ndax changé ko ñëpp doon gor mais loolu ama Amadou soo ko waxee ñu ne waaw kon gars yi fabul seen alal ba jot ko def ci jaam ñi te mu amat amul alal jim leen delloo léegi dañuy ñàkk seen alal est-ce que loolu ci démocratie la bokk bokkul ci démocratie économique bi yonent bi dikkee dafa fekkoon nit ki di lebal nit ne ko ñu jëm déwén wala juróomi weer ci kanam soo ma dee fay nag bu ma la joxee junni nga teg ca ñaar téeméer juróom fukk ñu kon ñu nekk ca loola waaye ndeysaan boo xamante ne dat ba jot na te waa ji munta fay bu dikkee da ko naan ah waaw léegi kon yaa ma yoral ñaar téeméer juróom fukk mu ne waaw mu ne ko ah waxtu sàngam nga koy fay mu ne waaw mu ne ko suur soo ko dee fay waxtu sàngam ñetti téeméer nga may fay loolu mooy addaafan mu daafatan ñu dem ba dat ba jot waaje mënu koo fay mu ne kaa ah, yaa melool ñetti téeméer mu ne waaw mu ne ko ñetti téeméer juróom fukk nga may fay soo ma ko dee fay waxtu sàngam affaire ba di yéeg ba benn bis mu ne ko sawaay marché bay boo fa demee nangam di nga amub jaam te man li ma la lebal ëpp na njëgu jaam sa doom ci jigéen jii nga may jox mbaa sa doom ci góor jii nga may jox faye ko doom ja ak njaam <coughs> defi ko jaam bu ko neexee jaayi ko yeneen bi dikkee ne lebal nit di ko teg intérêt ci xaalis ak xaalis dootu fi amati loolu rupture la waaye nag bu doon bor leble wutu fi am kon ak ndof lay doon ci moom waaye dafa wax ne leble di ci teg intérêt dootul amati waaye ñële dañ ko naan waaw kon nun bu ñu yëkkatee sunu alal lebal ko nit mu dem di ko liggéeyi ji ngir am ci dara nun léegi sunu alal jooju bu ñu ci tegalul dara te alal ji daf fay tëdd kon dañuy perte dañ leen ci war a tegal intérêt yeneen bi ne déedéet ndax waa ji bu jëlee alal ji nekk julub mbaam day bàyyi fii paas dem ba Mali jëndi fay mbaam andi yor ko di ko yar ak ay yafal di ko jaay mbaam par mbaam ba mbaam yee jeex kon xaalis bi boo ko ci tegalee intérêt su ko jaayee jox la intérêt du am bénéfice kon aw ñaqam day day niil ñu ne ko waaw kon nu ñuy def mu ne si ngeen bëggee leble bor teg ca intérêt su ngeen gisee ku bëgg a jënd ay mbaam di ko jaay bu leen ko jox xaalis bi di ko ci tegal intérêt yéen dem leen ngeen jëndi mbaam fa mu yombe indi ko su ngeen ko indee xool la leen soob yàlla te woon ngeen jënde ko mbaam junni ñëw jaaye ko ko mbaam ñaari junni waaye su ko wëree ne mbaam mii su ma ko jëndee ci ñaari junni mën naa cee ñaari téeméer wala ñetti téeméer ngeen lebal ko mbaam mi ne ko mbaam mi nag nun noo ko jëndi woon ci junni waaye nag nun ñaari junni lañ la koy jaayee ñoo ko jëndi woon nag ba Tamba indi ko fi mu d'accord ca loola nga yëkkati mbaam ma jox ko mu dem jaayi ko su ko jaayee ñaari junni ak juróomi téeméer jël juróomi téeméer muy coonoom nga jël yow sa ñaari junni génn ci sa paasab Mali ak sa coono ndax junni nga ko jëndee woon loolu mën naa nekk waaye doo ko jox junni ne ko demal jëndi mbaam mu dem jëndi jëndul lu dul mel na mbaam bàyyi ko këram di ko yafal di ci sonn di ko yóbbu ca marché ba di waxaale ñuy xàcc boobam koy jaay mu jaay ko nga ne ko junni bi juróomi téeméer nga ma ciy tegal kon su ko jaayee junni juróomi téeméer da koy ngàbb jox la ñàkk alalam coono boobu muy sonn ba man cee teg bénéfice yow soo ko bëggee lebal te mu ci kaw jënd ak njaay demal di am ci coono di teg ci sa jaay ko ko ci sa bénéfice nag yow mu dem jaayalum ca am jël loolu mooy ràngu ràngu moom la ñuy wax mu mooy mudaaraba loolu islam d'accord na ci waaye ba mu amat dikkee terewul ndimbalante ci wàllu jënd ak jaay waaye rupture teg ci nit intérêt boo xam ne du ci am dara def ci sonn moom la dajji amadu rupture du dara lu dul soppi lu bon mu doon lu baax ak bàyyi fi lu baax te yokku ko loolu mooy rupture waaye buub lépp sànni moom kenn du ko tuddee rupture ak noof lay tekki Amadou li ngay gis rupture la géej gi nga xam ne ca jamonoy Abdou Diouf ba léegi dañ koo jaay dootoo gisati lu bokk ci aw jën nga nekk foofu njaarim di lekk yabooy te yow xam nga ni jën coof mbaate jarañ lañ daan wax ba ñu nekkee gone nga xam ne yaxi jën yi maire yi dañ ko daa bënn di ci def ay fer ñii di ko bënn di ci def ay kurus ndax jën yu ngand ñii di ko bënn di ko nas ay téqal di ko takk ci baat ak ci tànk ak di ko def njaral loxo Amadou gisati nga njaral loxo lu nekk yaxu jën jën yaa ngi fi ba léegi tubaab yooyu ko daan jël di yóbbu Europe gars yi ba ñu tegee mbir mi ci yoon yow dafa nga ne Union européenne ni mu toll nga signé ne mbooleem union européen am nañu droit ñëw napp si ci géej géejug Sénégal aw jën dana fi des jën yi jeexul tubaab yaa ko daan yóbbu jën yaa ngi nii coof yaa ngi nii jarañ yaa ngi nii kocc yaa ngi nii sëddo yaa ngi nii jën yu rafet ba mel ni or bes peq boo ci peese mu mat cinquante kilos wala vingt cinq kilo amatul woon te am na géeju Kayaar gisatoo ko woon Amadou léegi nga gis ko ndax kayaar dana am jën dàq nañ tubaab yi dàq sàcc yi gars yi jaayoon géej gi jël xaalis bi def ci seen poos jariñoo ci ko ñëw seen i doom di jaaxaan fa du bay di noos génne nañ leen fi dindi nañu tappale yooyu yëpp jën yi ñu bisiwaat nañ seen dëkk ndax tubaab yi leen daan napp da ngeen daan jóge fi dem Mauritanie dafa ñaani autorisation de napp ñi di leen fa fetal ak ngeen di sàcc jëni jàmbur yi ñoo ñooñu seen gouvernement dañoo bëgg seen am ñoom dañoo quaranté woon seen géej pour seen seen population ñun suñ gouvernement jaay suñu géej ba ñuy sàcc géej yi jàmbur ñu di ñu sànni ay bal ci biir géej Amadou lii ci rupture la bokk Amadou Gueye gis nga xënti seko yi nga xam ne Senghor ñoo ko fi def woon ñu demoon ba def ko ay magasin dencukaayu ngooñ ñun waxuñu ne gouvernement bi fi nekk daawul joxe du dégg nga li milliards yi daan wax ne gouvernement yi moo ko doon joxe pour baykat yi sa classe gi ci ñoom la daan yem ñu seddoo côté duñ dem tool sama classe gi nga xam ne nun sama tool a ngi nii maa ngi yeew sama fas sama sareet a ngi mën naa koo télévisé suba woon la ko samay machine a ngi am naa tool am fas ak sareet am machine mënatuma woon a fexe ba gerte ñëw sama kër te gouvernement bi daan débloqué ay deux cent milliards ay trois cent milliards pour béykat yi ah, ngeen di ko ji ci seen poos yi loolu du ngeen ci jot ren rupture ngo nee na armée bi lay jox ren jiw wi ñoo koy séddaleel seen bopp ci béykat yi ngir nit ñi mën cee jot ba dem béy waxuñu ne alal daawul génn ngir béykat yi waaye bu ñu ko génne waa ba noppi fokat yi ànd ak Macky Sall ñëw ko daan séddoo jikko ci seeni poos dem Dubai jaaxaan di noos ñun ñi wooli garab Amadou déglu rek rupture a ngi am de